waaye si maa ngi nii rek. jànk dama naa la de. billaay maa xam nga Awa Sow pël bu rafet. Awa Sow waa xam naa ko de. Awa de sama nijaay bi nga xam ne daa am ba énervé. yor ba yor tur. di wàccee fii alalam bu dul jeex. moo gis aw di jooy guddi di jooy bëccëg ne da koy takk par force may ko kër may ko oto xanaa xam nga. ah man de gënaluma. kii nit la. gënalu ma de dama lay wax lu leer te ci wóor laa ko teg damaa bind sama livre ci Awa Sow. xanaa yow naa liiral lii dama la koy liiral ba mu leer naa déglu ma rek ma wax la ñaara ngi ci ba ñett ba ñeent ndax Awa Sow benn jikkoom daju ma. Awa Sow mel pël bu rafet. ku ko jàpp jàpp ku bon ku ko bàyyi bàyyi ku bon Awa Sow du nit ku baax. yow mi yaa yow doo ma déglu ma wax la sa nijaay da daa bëgg lu baax ba mu ba mu wax nga tànnal ko Awa Sow Awa mbiram. Mm. du waa awasaw nit ku bon la Awa Sow day nettali te yeewul làmmiñ bi Awa Sow wër rekk lay def Awa Sow bàyyiwul bu waat wër na fépp àdduna wërngal këpp ñépp a ko xam toogul te tànkam bi moo ko moom comme bargaruma bu papaam nag dañ koo wër fan yee lañ ko doon wër gisuñu ko muur lañ ko fekkee mujjee fekk nii mu toog ñu jàpp ko indi ko ñu yaakaar ne dafa wéradi awa saw baaxul guddi baaxul bëccëg. awa saw miin wax. ay indi lu ne yow. laa la wax xonkaayam boobu boo ko gisee. Ah. nga yaakaar ne diw diw nag tey naturel la naturelul. yaayam gërëmu ko papaam gërëmu ko dox rek lay nekkee ci dëkk bi yow nga tànnal ko keneen sax moo gën nga jox ko awa saw man awa saw jikkoom doyuma de wër rek lay def taxawaar man de waaru naa man de aw oh, man gisuma doxaanante rek la nekkee ci dëkk bi nag ak a mën na ngeen def wa wa pël iya, iya, iya. nah, bu rafet sans ci loo nekk pël bu rafet ci loo nek ya ngi am jàmm namm la de jàmm laay la yaa ngi am bu baax maa ngi am jàmm bu baax ah jank rafet na de allah puissance na allah sama xol dafa sedd bi ma ñëwee fekk leen ngeen toog nii dëgg la kay def seen sañse fëlaale bam très bien ci de allah awa oui chérie démb woo naa la. dëgg la loolu la wax sama nijaay bu loolu doon wax. Mhm. pour yee ñaan ngeen mën a marier. Euh, puissance ndeysaan démb ci guddi dag ma woo téléphone. Mhm. expliqué ma ne sa nijaay dafa bëgg jabar te taamu ci kenn mën na ci taamu yow tamit yàqoo ci dara macha allah. Mhm. ma rafetlu acte bi nga def parce que acte bu rafet la. ndax bu la neexoon bala sa nijaay waxee nga ne ko du ci dal mais dafay wane ne ànd bi ñu doon ànd démb ak bërki démb. tey la gën a yokku. mais nag euh, dafa am rêve boo xamante ne depuis toute petite rêve boobu dama ko dama ko mébétoon daal ne lii su ma sañoon noonu lay demee yàlla dogal na benn bi dem na muy yow am nga jëkkër marié nga bu yàggut ma ne man du ma njëkk a am maman mi jëkkër déet séeri moom waa ji bu jógee ba États-Unis xam nga xol dafa garaaw mbirum xol la comme que moom yow la choisir man sax wax naa ko kii bañ d'accord ci ay wax comme ko yow la choisir ba tippoo la mhm. léegi yow da ngay jéem dem yalla bu doxate sama aajo ma jot man dina jéem ni de, de de géeju mambulan taluma ko jot li ma la waxal yow fi bu ko yak seri fi ne ni dama jooy ba deseetuma rongañ bu taxat ma génnee samay rongañ yow awa saw defo fi lu ñaaw waxo fi lu ñaaw awa saw yow nit ku bax nga ku la japp jàpp ku bax ku la baye bàyyi ku bax la ya bax rek ndeysaan ndeysaan bu joy ya ya joy waaw man dama ya yee jooy gis nga yow xam la laa la yëgal. ngeen mel ni nga mel ni ku yor sa mag nga mel ni kii sa mag la. ndeysaan ànd bee yàgg. Eh, kii de bu mu toogee sànq. ma koy laaj sa diggante. yaa sama nijaay pour ngeen mën a sëy. lu mu la fi yëqul ci lu bon amul. kan nee na yow buwaatoo buwaat yaa ngi fa. wax ji da nga koo dëpp man li ma waxal Awa Sow lépp lu baax la. fi mu ne nii Awa Sow toog na nga bëgg maa jiiñ wax ji wax ji danga koo dëpp du samay wax. waaw kon man li léegi lu ma wax du dëgg. yow sa nijaay ba nga ma nee sa nijaay dafa bëgg Awa Sow dama na ma ne nañ ci dox lu baax ndax lu baax loo ciy def lu nekk day gaaw loolu de laa fi wax ci lu baax nag awa saw bu la jàppee nga sëy bu la jàppul nga sëy <laughs>